jërë ngeen jëf ameen tournatu TMS TV ñu ngi leen di jaar yéen ñëpp di leen jox seen uh, wàccuwaay di leen di jaar bu baax a baax a baax a baax di leen wax ngeen woy di abonné boo leen abonné ba noppi bës leen cloche de notification bi pour recevoir toutes nos informations da ngeen wéy di liker di commenter di partager ah ngir gën a mun a wéyal suñu suñu suñ suñu liggéey di leen di joxaat seen wàccuwaay baax baax comme toujours ci ay reportage tey ji ñëw nañu marché HLM vous savez ñu ngi ci préparation tabaski wàccaayu tabaski tey jii ñu ñëw marché HLM pour wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay tissu ba xam tissu yi dox na est-ce que fi mu toog nii gis nañ seen bopp ba xam clients yi ñu ngi ñëw loolu lépp dinañ ko waxtaanee fii ci marché HLM ci suñu reportage ñu dem ji bi. voilà ñu ngi wéy ci suñu reportage ba tey marché HLM ñu ñëw fii fekk fii ah ah benn daankatu doole benn jaaykatu tissu cheikh bi nuyu naa la. waaw la. tur bi naan nga. Euh, Seydina Alioune lañ koy wax. Seydina Alioune borom jaasi bi. waa ah, gis nga mais jaasi bi nag jotaguma ci de. noo jot ci nag. <laughs> non war naa jot ma mais jotaguma ci quoi. incha allah di nga ci jot gis nañu préparation tabaski bi. ah ñu ngi waaj tabaski fi mu toll nii clients yi ñu ngi ñëw jaay ci si beeg yooyu naka la demee fii. bien bi bisimilah biñ ginnaaw bi ñu nuyu ñëpp ziar ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay di nuyu les internautes di nuyu aussi waa TMS TV eh, di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal ci déplacement bi nga xamante ne eh, déplacé ngeen ko ñëw ba HLM di laaj les avis des commerçants yi. aja ben waajtaayu tabaski bi de moom franchement ben euh, ñu ngi ci ñu ngi ci gis ngeen bi ngeen dugg see ba léegi gis benn client. Euh, par rapport ak nu mu doon demee les années passées euh, am na bees bu baax a baax sax am na bees parce que temps yi da doon fekk euh, pour nga toog di añ sax problème la doon nekk ndax jaay ma jaay ma jaay ma mais gis ngeen depuis bi ngeen ñëw ba te gis leen benn bu taxaw donc kon franchement du ma wax ne doxul nag du ma wax ne doxul mais ni mu doon doxee daal doxewul noonu franchement. voilà lan nga jàpp moo andi rareté client yi fii. ben jafoon jafe-jafe àdduna bi jafe-jafe adduna bi ñi ci des aussi nit ñi dañoo teel a yeewu léegi.

Euh, parce que am na ñu bari nee nañu régime bu bees bi ni ñuy dundee dafa metti moo tax lépp moo changé ci marché bi. noo xam nga régime bu bees bi kenn mën a ko kenn mënagu ko man boog pour l'instant saman mënagu moo ko contester ci euh, ni mu dundee dafa dafa metti parce que il vient juste d'avoir deux mois quelques jour donc kon loolu mën na koo xam exactement ndax ci régime bu bees bi la oui ou non franchement. bu ñu waxante dëgg rek tey la tax man faruma kenn parce que man li may liggéey mayuma pour ma far fenn mais nag régime bu bees mënaguñ mënaguñ wax ci dara ci ñoom parce que defaguñ fi dara liggéeyaguñu ñu ngi ci euh, di fal di folli donc mënaguñu xam ba xam ndax li tax mu a yàgg tuuti quoi parce que boo xoolee ne presque cinq derniers années yëpp leen indexé pour man boog mënu ma leen indexé quoi franchement voilà mais est-ce que nekkul tamit tissu yi ñoo cher moo tax clients yi ñëwuñu. non tissu yi moom ça dépend ça dépend ci ki parce que tey euh, loo am boo demee marché ku nekk daal li nga am boo demee marché da nga am nga bëgg. li nga bëgg du du que tey xam nga am na jesne jesne moo gën a cher bazin riche am am na am na sax bazin bi nga xamante ne moo gën a yomb contre riche. donc kon euh, ne da nga xool si sa doole toll. nga demee ko mais boo bëggee boo yoree par exemple 1000 francs bëgg a jënd lu euh, bëgg am valeur bu 5000 day métti ci yow. waaw ah, day xaw a métti donc euh, loo am daal boo ñëwee marché mën nga am li nga bëgg mais nag du comme par exemple li a bëgg carrément da ngay xool fi sa doole yem hmm? nga nga nga nga doxee noonu waaw nga doylu parce que boo bëggee yore benn vingt cinq mille bugg di sóoru boo xamante ne mètre bi kese soixante quinze mille xaw a métti te loolu am na ci marché bi am na tissu yoo xam ne dafa cher c'est mais nag booy jënd da xool li nga xamante ne moom te doole yem rek nga bañ nga bañ a xool li nga xamante ne toujours nit da xool ñi nga xamante ne yàlla leen parce que nu ak nu mënti demee rek am na ñoo xamante ne yaa leen tane mais am na ñoo boo bëggee teg sa bët ci ñi la tane da nga indi sa problème mais boo xoolee ñi nga tane kon doo kon coow du am te euh, problème du am. voilà ba tey ñu ngi suñu reportage tey fii marché HLM ñu ñëwoon tey xool ci tissu et autres en fekkaat nañ fi beneen soxna boo xamante ni moom ay tissu lay jaay soxna si nuyu nañu la. Euh, sëñ bi Malaysia. tur bi naan la caara Seck madame Guèye. Thiara Seck madame Guèye. waaw Thiara ma madame Guèye. ana monsieur Guèye. monsieur Guèye mi ngi si jaamu. di baax. di baax loolu macha allah. kon jërëjëf caara gis nañu ñu ngi ci wàccaayu tabaski marché HLM tissu yi ak client yeeg yooyu nan nga demee fii. Euh, marché HLM waa ñu ngi si wàccaayu tabaski bi comme niñ ko miinee rek tabaski dafa nekk benn euh, feet bi spéciale nekk feet bi gën a rëy ci feetu jullit yi boo xam ñëpp a ko bokk macha allah mu fête boo xam ne bu ñëwee euh, bokk na si li gën a fonk muy sañse sol lu bees sañse ba jekk macha allah fi marché HLM ne nii lu waaye di wër mi ngi fi mu mel ren askage yaa fi di yëngal jamono euh, suñu borode di piir yu bëri daal suñu tisi sañse jasner mais surtout nag ren moom askage bi ak euh, jipir bi moom gars yi taamu nañ ko lool. yan tissu la client yi di gën a jënd di gën a bëgg. mooy li ma la ak euh, jipir bi. ban mooy askage ana askage yi. am na askage bii nii mooy askage til bi. dafa am HCG TIL dafa am aussi HCG eh, kii organza mm-hmm. am HCG jippiir mooy yii nii yëpp ay jippiir la ah, mm-hmm, yëpp ay tis sañse la daal mm-hmm. léegi euh, préparation fête beeg yooyu est-ce que clients yi ñu ngi ñëw waa macha allah vraiment jënd nañ nag ñu ngi ñëw bu baax ñu ñëw bu baax c'est tabaski dafa nekk loo xam ne nit ñi bokkul ak Korité Korité dañuy jënd ba dernier moment mais tabaski mën nañu daanaka suñu génnee si Korité rek nit ñi dañuy préparer tabaski bi moo tax à chaque fois ñun ñu jaay tissu bu desee une semaine deux semaines da ngay gis suñu liggéey dafa ralenti parce que day fekk nañu jënd nañ ba pare parce que nit ñi dañuy tabaski ji seen dëkk yi fi ñu dem dafay sori moo tax dañuy teel a jënd dañuy teel a ñawlu mhm. est-ce que jaaykatu tissu yi yokkuñu yokkuñu tamit tissu yi au contraire dañoo gën a wàññi waaye am am tissu barki yonent bi sa poos toll boo ñëwee fii am tissu voilà jibi ba tey ñu ngi marché HLM ah ñëwoon doon wax ci préparation tabaski bi mais bon on parle de tout et de tout kii ñu gis vraiment mu doon ko xamante ne mi ngi jaay euh, vaisselier et autres cheikh bi nuyu nañ la. waaw ñoo ngi la ñu ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay waa ñuy sant bu baax bu baax marché HLM nag moom moo ngi nii. tur bi naan nga. Mortala Mbub. Mortala Mbub. Mortala Mbub la. waa fii la ñuy jaaye si marché HLM mais dañu fay juuti di fay impôt di fay lu ne te marché bi amul benn. civilisation boo génnee si biir canal yi ñoo ngi tuuru marché bi ñoo ngi tooy ndox clients yi duñ am fuñ jàll ah chaque année dañu fay impôt ñii cinquante mille ñii soixante mille ñii quarante mille man mii deux cent laay fay saa bu ma xëyee ah te marché bi mënoo fexe ba marché bi set. wala ñu wala ñu koy bale amul gan gu fi ñëw bu ko ni fii may marché asalem danaan déedéet fii du marché asalem parce que dañuy dañuy dégg marché asalem ni mu yaatoo ak nu mu magee dañuy yaakaar marché bu développé te marché bi yaar rien amul dara maire bi fi ne juuti yi fi ne ci kenn def fi dara defuñu fi ñaar dërëm lu du encaisse sa xaalis dem seen kër tëdd nalaw lañ lañ fi nekkee loolu daal moo nekk si marché HLM macha allah. voilà est-ce que préparation tabaski bi yéen a ngi ciy gis seen bopp. waa waa waa préparation tabaski bi ñoo ngi si sant yàlla nit ki moom bu amee wér rek ak tawfeex tawféex sant la loo am rek nga xam ne li la sunu borom jagleel. clients yi ñu ngi ñëw. waaw clients yi ñoo ngi ñëw bu baax a baax mais nag moom clients yi ñoo ngi ñëw mais ñoo ngi ñëw parce que marché HLM nu mu mel la boo génn si biti client bu bëgg a ñëw sax bu bëggee génn sax day daat di anéeraat ndax salte ndax fees dell ak ndox ndoxu foos yi ñoo fiy ball kenn du ko vidé kenn du bale ah oto mbale bu ñëwee day tonn tuuti dem yoonam guddi war na jot gars yi mën a ñëw nettoyer marché ba mu set. bale ko ba mu set bu ñu xëyee ba marché mën a am féex client yi mën a dugg si mais tant que loolu amul si marché HLM client yi duñ mën a dugg fenn fi ñu ku fi jaar ndox mi yëpp ay sobe la baaxul ah loolu daa moo nekk si marché HLM mais nag ñoo ngi sant yàlla bu wér a wér kenn ku si neen li nga for nga xam ne li la sunu borom jagleel moom nga kii alhamdulilah.